dikkati naa yàgg naa leen wax coow la ca pëndum teen ba gaañaamul baagal enquête quotidien naan man en tout cas machine ba moom ma ngay ruq jëm ca présidentiel ba nag mbir yi jaxasoo Sénégal daal di lëj ne wëñ kan mënu koo lijjanti fi mu ne laas yéene kaay naan man en tout cas jaxasoo na fi mu ne nag set sage yi ñoom la askan wi di déglu yaa war a wax bu mu la tax wax bii yoon yi ñoom ñoo war a wax ñoom la ñuy déglu professeur Babacar Gueye ci Vox Populi naan lii de mooy seen rôle w wàññey parrainage ma ne la taxul ñu respecté conseil constitutionnel laas naan kon ma ñëw Khalifa Babacar Sall ma ma nga naan dàqi présidentiel buñ ko déggti l'évidence yéen kaay mel ni ku naan kon ku wax waxu dàq présidentiel fii en tout cas Bougane Gueye ma nga naan keccet ma ca lépp loo xam ni xel wala xalaatug dàqu présidentiel la acam bëgguma critique yéen kaay naan kon bokk ci ñi nga xam ne dañoo bëgg rëkkale yi nag ñu delloo leen seeni ak ak yelleef waaye lépp lu jëm ci dàqi présidentiel Bougane Gueye Dany nee na bokkuma turbine yéen kaay naan kon élection présidentielle février 2024 bi Bougane nga naan ci benn ayu bés rek ñu fichier bu baax bi doom neex ndayam wala dees na xoolaat bu baax a baax contrôle parrainage lu fa jaar faay yi fan la fan la ñu naxee gaay yi erreur yi fan lañ ko defee waaye ak fichier bi baax bi laa wax njiital gëm sa bopp naan ma ne la waxuñu waxu ay report waxuñu waxi dàq élection fi mu toll nii ñeent fukki fan ak juróom moo des ci élection présidentielle yi ngir moo am fii ak campagne gi di door mënees naa jébbale fichier bu baax bi ñu daal di koy saytoog informaticien yu mucc ay ñu fan la ñu contrôlé waat parrainage yi gaay yi jàll ndax loo ci manti dee git parrainage bi fi mu ne mooy jafe-jafe yi waaye tam ci kaw baasug loolu bugaan naan gars yi bu nu bañ Ousmane Sonko bokk ci élection yi ndax xeex gi ci boppam bokk na ci Ousmane Sonko bokk ci élection yi moom Babacar Fall bu Gradec ci Vox Populi di xam xamle ni daaf ci boppam buy toog di xamle ni données yi nekk ci fichier yi kenn mettre ko à jour maanaam am nañu ca war nekk te nekkuñ ca am nañu ca warul nekk te nekk ca loolee Babacar naan problème dëgg-dëgg la maître Amadou Ali kat naan élection présidentielle yéen a nekk di wax rek këyit tëgg na ko matal laal na ko bu yàgg yéen nag yéen nekk fii ñu jàppalee ni marionnette di leen jaarloo waaye gars yi lañ bëgg def def nañ ko ci réew mi professeur Babacar Gueye constitutionnaliste ci yéen kaay bi ne coow li coow li mooy conseil constitutionnel gëddëm waru ko may sax mu taxaw fii di wàññi parrainage critique yéen kaay naan kon bugaana nga naan ànduma ci dàq élection le mandat yéen kaay naan kon dèjà yéen seen lettre boobee ngeen bind ñeent fukk ak ñeent candidat jébbal ko président Macky Sall te turu Ousmane Sonko ñu ko ca moom Ousmane Sonko nee na keccet ko ca waxul bindul ñaanul président Macky Sall 24 heures yéen a kaay naan maan moom Ousmane Sonko day ma ngay xamle ni fii mbir yi toll moom président Macky Sall mënatul lenn ci élection yi conseil constitutionnel kay mooy wax mooy jëf le point actu naan kon opposition baa ngay tas tasaaroo ndax collectif bi nga xam ne recalé yi diggante Mimi Touré ak Bougane Gueye Dany taxawal nañ ko te Ousmane Sonko ne bokkul ci mbir moomee le point actu daal di ne moom représentant Ousmane Sonko lan la doon def ci collectif yi ñu recalé yi sur soit naan kon maa mën maa ëpp doole bi naan maan coow li coow li mooy mbir mi directeur bu école bu parti bu Pastef ci boppam teew na ca ñoo ba nga xam ne moom collectif bi nee woon na day bind ab bataaxal moom président Macky Sall sursoi naan gannaaw ba ñu ko woowe moom Moustapha Sare ci boppam daal dinay dëggal loolee xam le it daal dinay xaatim ca bés boobee waaye coow li mooy Moustapha ci boppam dafa xam le ni ba muy bokk amul woon temps ngir daal di yëgal Ousmane Sonko te lettre boobe daanaka moom ñëpp ko yëgandoo tribune yéen kaay naan kon présidentiel yi na mu taqee suuf moo bari diggante Amsatou Sow Sidibé mi nga xam ne déposé na ab di laaj jurisprudence Insa Sankharé Fatou Thiam mi xamal Badio Camara naan koon soo bàyyee Karim Meïssa Wade mu bokk ci élection présidentielle yi war ngaa mën a bàyyi Bougane Gueye Dany ak ñeneen ñi nga xam ne daal dina ñuy wax nga saytu saytuwaat parrainage bi turbine naan ko déet moom Karim Meïssa Wade kay France daal dina koy soowee fayal laaxu Karim ma nga xam ne ña nga doon wax ñaari nationalité la am niki démb France daal dina koy setal wecc Karim Meïssa Wade joxoñ Thierno Alassane Sall naan koon ka la yónni xam naa ko te Amadou Ba la tudd Karim naan lii bettuma ci Amadou Ba ndax ku baa moo ci fuuf ndax Amadou mësta def ci kaw xanaa yónnee ñu koy defal jee Le ko di Quotidien naan kon Karim dëgg la ñàkk nga sa nationalité française Gabriel Attal ni ki démb daal di koy dëggal waaye coow li mooy décembre ba tey conseil constitutionnel jot na sa déclaration sur l'honneur direct news daal ni laaj ba ngeen war a samp kay mooy Karim Meïssa wad démboo Njaay la ñàkk nationalité française am mil 2019 ak tey Karim di ñu nax keroog ba muy déposer conseil constitutionnel lan la wane ni ñàkk na nationalité française am boobee mooy wax kon 2019 bu nu jébbaloon suñu réew mii Karim Meïssa Wade ab français moo ñuy jiite Dakar Times naan loo ci manti dégg Thierno Alassane Sall dafa luqi góom bi te 2018 yàggul Karim Meïssa Wade ci kanamu sénégalais yi la toog na ñàkk na nationalité française am te démb réewum France xamal ñu ne démb démb la ko ñàkk l'observateur naan kon daanaka ñaari Karim mo am de te tuuti kon mbir yi jàll laaj wa samp moom moo di déclaration sur l'honneur bu may sa wadd boobee ban valeur la am ndax nag dees na jébbal suñu réew koo xam ne dafa boole sénégalais yépp daal di quotidien naan kon en tout cas Karim daal ñëpp la nax te Mounirou Sy la mu wax moom moo di conseil constitutionnel nekkul ci logique gu vérification bi kon la Karim wax la mën a gëm le témoin yéene kaay naan kon moo taxit diggante Thierno Alassane Sall Karim Meïssa Wade ak Amadou Ba ñang ca teesante wu rëy bi la journée ma présidentielle yi day xët yaa ngi dalantee fu ne Thierno Alassane Sall moom fa mu ngankoon bàyyiwul ma nga naan lii Karim Meïssa Wade naxee sénégalais yi war naa tax rek ñu daal di koy écarter ci présidentielle bi booba moom Amadou Ba it ma nga téye ci ñeenti argument yu dëgër ngir fas yéene nag rëppatal ña xam ne ay candidat Ousmane Sonko lañu Walf Quotidien naan coow li coow li moom moo di Amadou Ba ci boppam moo fasul yéene bëri ak kenn koo xam ne jege ñaale Ousmane Sonko nga Amadou ci digg géew gi moom bokk na su meeku na diwoo déebaa déebam taxaw na nag kama neex laay songool bëre bugaan géy dana ci tribune yéene kaay mel ni ku naan koon du fi amee waxtu woon yu tëggee bi day am ma ne la report du am waaye fichier bu baax bi génnee leen ko ñu saytuwaat parrainage bi ndax tànd ka ngay bëreel day yomb ndax loolee day mel ni dangaa teggil askan wi seenug sañ-sañ xool ka ñu bëgg ñu di koy fal le soleil yéen a kaay mooy bëgg-bëgg président Macky Sall mooy tal yi ñëw lu tollu ci fukk ak juróom benn ci projet juróom ñaari téeméeri milliards ñu fas yéene ko def ci tali yi ci diiwaanu Ndakaaru laas nan man booba téesante ci wàllu kan bi jeexagul moom directeur général bu New World TV daal dinay dëggal RTS daal di koy le lépp lu jëm ci kan bi moom RTS moo ko war a organiser waaye tam lépp lu jëm ci fan zone yi ak yeneen yoo xam ni soxal na kan bi moom RTS moo am droit organiser ko ci boobule communiqué ñu xamal RTS ne ko yaa sañ jox ku la neex mu organiser fan zone bi keneen ku ko def des na rëq ca ndigg tribune sport naan maan yàggul yeexul moom alimaane tontu na leen ma nga naan leen lan moo tax ngeen gaaw a tontu te xaaru leen yoon def liggéeyam lan moo tax ngeen jël intérêt RTS jiital fàtte askan wi nga xam ne bëgg nañoo seetaanandoo match ci riirandoo ku mu neex teg sab télé ci sag mbedd woo say mbokk ñu génn seetaanandoo ko alee nga naan leen respecté leen askanuk Sénégal respecté leen supporters yu équipe nationale bu Sénégal te naan leen yéen New World jébbal leen ab communiqué boo xam ne ca la bàyyeekoo di xamal RTS naan kon moom dong moo am droit dajale sénégalais yi ci mbedd ñuy seetaan match ndax nag ñu ne la yaay teg ñaar fukk ak juróom-ñeent ci juróom fukki match ak juróom yoo xam ne mooy daw ci kan bi joxul RTS sañ sañ ngir mu tënk sénégalais yi ci fu nuy seetaane match bi tribune sport naan maan niki tey jii ci ngoon moom aali maana dina jënoog taskatu xibaar yi coowal kan bi nag tàmbali te fasul yéen a jeex fii ak kan bi di jeex ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm